màggal gi ñu génn ànd nañ koog man jëfe ko nii ñu ko jëfe te tax sëriñ bi dafa ñu ay ndax moo xam taalibe bu nekk ci biir réew mi ak bu nekk bitim réew maa ngi yëkki ay kàddu di leen sant sant bu bu amul fu mu yem màggal gi day sëriñ bi dimbali nañu ba nu weesala ko weesu nañ ko ci jàmm defe ko lu suñu jot kon sant ko war noonu waaw ne naa leen day du ñu seetaan danañu dimbali ba nu ba nu ba nu jëfal ko màggal lépp nag moom doonu ñu ci dara bu doon mun rek mën naa am sax kaaru nag du fa fekk du fa am sant rek jaarale bi mu ko jaarale ci suñu jëmm mu mel ni danoo def dara te defuñu dara lépp moom sant yeeg ngërëm yeeg yëpp ñu ko koy joxe ndax moom rek ko koy yee ku am xam-xam tuuti di xam ni ñun day doonuñu ci dara dañ koy liggéey dañ koy da ko koy sëriñ bi jagleel ko ko defal booba fekkewuñ kon nag ñu def lu dul sant yàlla ci noonu mu doxale mbiram jaarale ko ci ñun sama mbég na ci taal bu yëpp maa di gërëm def ngeen lu ngeen man def ngeen lu ngeen man wax sant naa leen gërëm maa ngi sant bu baax nag ci bis bi tey ni mu doxee hmm. siyaar bi nga xam ne suñu mbokkum taal bi nii di Lamine Diop ànd ak mbooloom ñëw fii ñu daf ñooy siyaare si Lamine nag day jëm joo xam ni ci nekku sëriñ bi sax bi mu fii ne day sànn da doon jëm ju baax ju ma amaloon wëllëre sëriñ bi daan nu boole ci ay yëf yu bari maa ngi koy fàttaliku boole bi ñu mujjee boole mooy bi ma jëndee sama oto bi ma mujjee am Ford Explorer bi mu ñëwee damaa ñëw di mi ngi ci port bi ñuy wax Lamine sa wërsëg amiin amiin ñu ñaan ci barkeb sëriñ ni bëgg naa ci jërëjëf booba ba tey ànd koog Cheikh Ibrahima Fall. waaw Touba. ndeysaan yaa ko baax. moom it ndeysaan bëgg baax lool. bëgg sa ndam ndeysaan bëgg sa ndam. foo ko fekk ci loolu lay dox. lu jëm ju baax. waaw bëgg bëgg waa góor. maa ngi lay sant. maa ngi lay sant baax. te 6 heures ba léegi ñu woo di ma wax ci fu ñu toll. sëñ bi bàyyi daaw parce fan yi dama xaw a nooy jagat yi jàppoon nañ ni du ma ñëw ci saal.